les guys bienvenue sur cette première émission Actu Fashion 1 TV la première chaîne des femmes Actu Fashion une émission de mode pour vous dire plus clair yow mi nga xam tu es styliste yow mi nga xamné da nga am prêt à porter yow mi nga xamné ou uude nga foog né boko ci enquête ci nga bok, la coiffeuse ki nga xamné da fay défar bopp yu rafet yi yow tamit ci nga bok, Actu ñepp la nara séti, seeti nek ben émission révolutionnaire de la mode fii si WF1 TV dinañ wane lan moy mode dëggantaan fi Sénégal donc Actu tay dina leen yóbbu fo xamné ne boutique grande taille la tey grande taille la nara waxal yow yow mi nga xam ne danga foog ne mënoo sol active fashion dina la jàngal nan la ñuy solo active fashion dina la wan lan mooy mode bu fekkee ne danga foog ne bokkoo ci tendance enkeñ ci nga bokk tey nag nuy ñëw fii si butiku baa Tout Touba t'offrir, nag que ben boutique bo xam grande taille yi lay waxal lépp luy sañse nga foog ne munoo ko am Sénégal si amnafi na fi yow mi nga tu es une grande taille di XL double XL yow mi nga xam ne foog nga ne munoo solo di nga mën a solu fii Touba tawféex mais lépp nag WF1 TV la les poules xewee lépp si Actu Fashion première émission la nar a xewee kon xam ne laa bëgg ngeen def ngeen topp ci biir ñu dugg on est un peu c'est quoi la mode émission bu neex pas leen indil tay topp salam. ah ça c'est mon frère. oui. Salam. alaikum. alaikum. jigéen mon salam alaikum. alaikum. wax. ça va cool je bien. ça va. Allez numéro 2 quoi Kopa. Oui! C'est jàmm. <laughs> su dox. toujours égal yaa ngi likki toujours bien. rek yaa ngi muñ ba léegi. ba léegi ma ngi alors tay nak mom mhm. Actu Fashion daf la ñëw première émission de mode. bienvenue donc. Fille si vous First TV. alors je t'explique un peu la chose. On TV c'est une chaîne réservée aux femmes.

Alors, je vais vous dire, amis téléspectateurs, nous sommes cette année sur une rubrique euh, découverte. Nous allons voir tout ce que nous proposons. Nous allons voir le modèle. Nous sommes cette année sur le plateau. alors chers amis téléspectateurs nous sommes toujours Woman First TV la chaîne des femmes euh, plus encore sur Actu Fashion comme niñ ko gisee sànq seetaan nañ modèle li nga xam ne fii si Touba Tawféex nañ ko doon tourner. wee modèle yi nga xam ne nous nañ ñu proposé mais avant tout nañ leen di nous ñoom ñi nga xam ne représenté boutique bi marque bi ñu présenté wu alors sama gars yi na ngeen Tu ci loo nekk. sant. bien alors bàyyi nga présenté wu si suñu invité spectateur yi. Ah, vraiment am nañ contentement ci ñëw bi ngeen fi ñëw bon man mom, si liñ ma gën a xamee Assane Shop Ah, ñu ngi fi vraiment nek ci liggéey bi yaa ma xam. alors à part Assane je pense que duo la suñu nee duo vous êtes deux. bien sûr. ma bàyyi la nga présenté wu. ñoo may woowee Seydina Aliou. Seydina. léegi jamm.

ñi créé tur bi am na ñu nga xamante ne ni liggéeyatuñu sax ci Touba Tawfekh léegi ñu ngi ci beneen business. donc tey jii su ma comprendre c'est une histoire de famille. Ouais. famille la yéen a mais tey jii bu ñu demee ba ne taw Tawfekh ñu ràññee leen ci yéen ñaar euh, lan moo nekkoon seen partition Seydina. non boutique bi moom bañ na ko ba Touba Tawfekh lañ ko lañ ko tuddee. Mhm. parce que fii moom ku fi ñëw dina la présenter yëre yi xam daal lay toppatoo waaw a sama frère bi Assane xam nga moom mooy loolu man ak moom nag dañoo déggoo quoi dañoo suude quoi voilà loolu moom moo tax ñu mën a nekk parce que ñun lu ñuy def lu ne dañ ciy dem si fulaak fayda voilà ay xale yu ndaw lañ mais tamit moom mooy loolu quoi parce que entreprise bi dañ ko bëgg yëkkati fu bëri ba nga xam ne dina mun a dem si àdduna bépp parce que loolu noonu ñoo ciy xalaat ñoo ciy dox chaque jour. xam naa ne incha allah loolu noonu yëpp dina ñëw. alors Touba Tawfekh une histoire de famille yéen vous êtes frères. man ak moom ay copains la yàgg na ça fait 15 ans voilà parce que man Sandaga laa nekkoon voilà foofu noonu lañ xamante voilà ba ñu bokk nag liggéey bi. mais ñëpp xam nañ ne liggéey c'est sensible ngeen dem ba taxawal lii. Il y a 15 ans de compagnonnage am na lu ko lal lan bon la euh, toujours li ngay def mu nekk yow te vraiment mën na li muy def euh, booy bu talentueux la affaire bi ci deretam la nekk jaay bi moom kenn dootu ko ko vraiment pourquoi pas waruñu ensemble te vraiment mhm. depuis biñ

effectivement boo ñëwé da ngay kontaan mais ma rappeler suñu amis téléspectateurs yi que ñoo ngi fi ci Women First TV ci cette émission Actu Fashion émission de mode première émission de mode bi nga xamné ne day jàngal xale yu jigéen yi comment s'habiller parce que je pense que tay euh Seydina. oui euh, solu. am nañu ko bëgg mais mënuñu ko xale bu jigéen bu solu ñu war ko mëna naw ci wam parce que yenn say yi damay gis ku romb. Euh, ñu bal ma ci kàddu bi mais solo bi du demee noonu soit c'est parce que corpulence ak li mu sol méngoowul mais loolu fotu jaaykat bi la wala fotu kiy jënd la. mun na nekk jaaykat bi mun na nekk kuy jënd aussi parce que tamit nit bés bu amee xaalis ne lii laa bëgg mais yow jaaykat bi da nga koy proposer si ban lieu nga nga ci kiiwee quoi. demee su ne la lieu bi da nga koy xoolal benn benn ensemble wala benn robe boo xam ne dina ko mën a yóbbu foofu quoi xam nga. selon lieu bi mu jëm. voilà parce que lieu boîte dafa am lieu restaurant am lieu réunion wala. ba pare gis naa aussi. yéen mhm. seen boutique da ngeen di bëri da ngeen di conseiller seen client gis naa ne client bi bu ñëwee. doo mhm. leen ko bàyyi noonu. parce que problème boobu aussi dañ ko am ah, dugg ci boutique euh, macha allah fii boo fi duggee franchement euh, bu ma naroon jënd robe tourné gis leneen. Mhm. damay réer. gis naa ne yéen doo leen bàyyi client bi mu évasif da ngeen koy orienté. Mhm. ci ci ci ci fii boo fi xasee dugg yaakaar naa ne ci ñi la war a mën a gën a aider ñun si lañ bokk. Mhm. parce que xam nañ métier bi te it yàgg nañ ci. te Sénégal dafa am benn habitude ba nga xamante ne kili euh, mën naam euh, jigéen ñi ñu ngi koy def mooy souvent da gis yére boo xamante ne lii pour guddi la nit ki bëgg di ko sol bëccëg wala soit bëgg naaj bu tàng bi nga di ko doxanto wala quelque chose comme ça parce que yére bu si nekk ak période bi mu laaj ak heure bi nga ko war a sol aussi. effectivement moo tax client souvent day bëgg yére ba nga xamante ne ñun euh, bu ñu waxee lieu bi mu jëm wala. tay fréquence fi nga xamanteni ni fa la ko wara a sol effectivement su fekké ni même mom la bëgg sax dañ koy wax ne ko lii contre temps la et puis tamit dañ lay bàyyi ak sa temps nga essayer xol lan mo lan mo lan mo gën ci yow en fait. Mhm. su boba di nga contane Touba Tawfekh ñaata at d'existence la bon Touba Tawfekh depuis 2016 ba légui ni existé machallah depuis 2016 yéen a ci si showbizu. Abima ñu ngi ci Sow Bijoux Abima effectivement am nañ ci ay euh, yeneen boutique parce que du bii rek. ok nekkul ne sax ci pays bi la ñuy jëndee mais suñu suñu suñu modèle en fait moo rare. comme soit mën nañ ko jëndee France mën nañ ko jëndee euh, Italie mën nañ ko jëndee Turquie mais à chaque fois buñ ko jëndee ba andi ko pour nga trouver ko ci marché bi rek problème lay doon. mais tey c'est seeni modèle naka ngeen koy choisir. d'habitude euh, su ma mënee dem voyage damay dem. su fekkente ne jàppuma am nañ fële tamit ki ay éléments Aliou tamit boo amee opportunité dem mu dem keneen ak keneen noonu ainsi de suite te euh, dem bi mooy boo demee aussi da ngay proposer li nga bëgg parce que d'habitude ni ñu bëri euh, li tax mënuñu avancer ci wàllu yére mm-hmm. mooy dañuy gis dara jënd ñoom duñ proposer man nag sama différence ak ñoom mooy man du ma demee si euh, cargo bi maanaam si si si magasin yi fi ñu koy liggéeyee man damay proposé eh, da ngeen di dem directement fi ñuy liggéeyee fi ñuy liggéeyee waaye man d'habitude du dem si boutique di jënd ay série super waaye man d'habitude damay gis benn model ba nga xamante ne neex na ma ma dem waxtaan seeg naar bi wala soit su fekkee maa ngi France ma waxtaan seeg tubaab bi wala Chine mhm. parce que aussi tamit damay jënd yëre Chine mais d'habitude nag boo waxee Chine ñi dañ foog ne yëre chinois ngay jaay te alors que Chine dañuy jaay qualité bu nga xamante ne sax mën naa ne Turquie du ko France du ko dañuy dem si si si si seen cargo yi mhm. ñu waxtaan ak ñoom ñu mën ñu defaral euh, temps de pièce yoo xamantene ni hors série lay doon beneen boutique du ko am bu dul Touba Tawfekh te qualité lay doon te et puis day rare d'habitude suñu yére nga gis ko ko sol c'est très rare waaye mhm. gis naa ne euh, da ngeen xam da ngeen xam li ñuy li ngeen def surtout li ngeen liggéey en matière de mode léegi dama bëggoon proposer suñu invité spectateurs yi ñu dem euh, seetaan yi euh, rubrique décryptage c'est-à-dire je vous explique un peu le concept euh, modèle la boo xam ne ñoom ñoo koy choisir mais wax leen naka lañ koy mais pas seulement fan la mën a dem nan lañ koy solee et surtout le plus important kan moo ko war a mën a sol ñu dem seetaani ji rubrique bi ñing leen andil ben robe 3 quarts robe bi 3 quarts la bo xolé tissu bi dafa neex ci tangay genre euh l'écran bu noy bi la comprendre nga nga xolé euh, devanture bi dafa am finition veste coupe veste la quoi chemise bi bo xolé genre euh, chemise lañ ko coupé robe bi coupe chemise veste la en plus bo xolé 3 quarts la robe yi nak d'habitude ñi koy sol ñep pour liguey la wala supposition nga am euh, benn sortie comme le soir mën nga ko sol quelque chose comme ça robe bu neex la tête, ñaari couleurs yi mu mélange dafa neex noir ak blanc à chaque fois temps lay doon ki bokoy koy si si si walu dal ak sac yomb na bu la neexee da ngay def tout noir rek comme ça mo gëna simple bu la neexee tamit comme su féké né da nga bëgg lu fashion man nga ko dégrader ak couleur bu melni rouge nga xamantene ne boobaa sañse bi trois couleurs lay doon li dafa accessible classe na un peu sexy te vraiment mën nga ko yóbbu fu la neex waaye li ci gëna neex tamit aussi taille bi bo xolé mom bi mu sol 44 la taille fay dem ba 52 big size mën nako sol en même temps su fekkee ne da nga am da fay camoufler parce que ceinture de taille bi mu am moom dafay am ceinture de taille comprendre nga vraiment rien à dire machallah té et puis ko sol tamit gis nga nim ko tour gis nga bo derrière bi coupe chemise bi ma la wax dafay am ay finition plissage gis nga ci souf li finition wu forcément dina ñëwaat mo ñëw ni épaule ki bi coude bi moo ñëwaat fii et puis tamit moo ñëwaat si cravate bi kon vraiment daal lii sañse la te tissu bi dévié na Sénégal yëpp ku ko a am Namako ma parce que lii euh, tissu la ba nga c'est très rare alors chers amis téléspectateurs comme niñ ko seetaanee léegi nii seetaan nañ suñu rubrique décryptage wan nañ modèle bi kan moo ko war a sol nan lañ ko war a solee mais euh, Aliou. oui. Euh, bëgg naa nga wax ma fii environnement jigéen la te yéen ay jantal booy ngeen. yes. kontaan na. yu soxor soxor clé. <laughs> mais sérieux ay jantal ngeen. ay jantal booy ngeen. te fii gis nañ ne. gis mm-hmm. nañ ne grande dame daf fi dugg. Mm-hmm. jéggi daf fi dugg njagamaar yeeg tay fii nii lépp ngeen di gis mais loolu nan ngeen koy gérer. Ah. waaw saa day jël rek. man de man ku fi ñëw ku ne ah ku fi ñëw ku ne soo ma wonee yaru ma won la yaru soo ma wonee réew ma won la réew xam nga. ka noonu nga laa koy jàppee. boole ko di doxal voilà mais. doxaan ah, loolu ñëpp en fait waaw du ma nangu ngeen sorxo sorxo ba yéen ñaar mais booy góor la kay mais góor laa amaguma jabar. mais da ngay waxaale da waxaale sa soxla nii. bien sûr dama xaw dama lamb xaw ma jël leen ma. <laughs> non mais ma jël dama sonn. sonn naa boo ngi waxaale soxlaam bi. voilà non mais sérieux en fait xam nañ ne fii environnement jigéen la te xam nañ Sénégal nu mu demee. dëgg la xam nga dañuy ñëw dugg sama genre yi. dugg gis xam nga ni nga jantale et tout la bàyyi ba mais tentation boobu nan ngeen di def ba rëcc si. non tamit nit ki moom. milieu ba ngay liggéeyee rek bës boo xamee lu la tax a jóg xam nga. Mm-hmm. des fois mën nga waxtaan ak xale bu jigéen bi sax nga xam ne kii nii kat intention bi moo ko indi jënd indi ko xam nga mais da ngay waxtaan ak moom ba ngeen doon ay xarit nga koy conseiller lu baax voilà. ñun noonu la def dañuy conseiller dañuy conseiller. jeeg yi surtout man mii na xam ne moom mooy loolu xale yi dafa maag ñoom nen ah, xanaa Assane moom mooy wax ak xale yi rek mais man yow xaritu jeeg yi la xaritu jeeg yi laa voilà mais mais tey jii est-ce que nga solal jeeg comme ni nga koy tuddee est-ce que yomb na non ak ma cee sawar lu tax damaa xam damaa xam seen lekk damaa xam lu leen jot lu leen euh, jàpp quoi loolu te lu am importance la

mais bés boo amee jëkkër xam nga daal di ñëw di sol xam nga lu la neex loo xam ne bés boo fi génnee xam nga yi ñoom mooy loolu bàyyiwuñ kenn. Uh-huh. waaw parce que je pense que sànq rek ñoo ngi koy wax ñoo ngi naan nga jël yére boo xam ne guddi nga ko war a sol nga sol ko bëccëg ah euh, nga jël yére boo xam ne euh, <laughs> si néeg bi la war a yem nga sol ko ci naaj bu tàng bi effectivement tout le temps day indi problème donc bëgg naa tuuti aussi ñu ñëw Nous nous, nous, nous, wax nous, nous, importance nous, euh, nous, parce que je fais par exemple je dis n'importe quoi une nous, double XL nous, sol ma gis sol S di ne sol S mi nous, bi na de un double XL mais est-ce que nous nous, non pour moi, nous, ci nous, ak euh, corporel bi mu mhm. parce que dafa am nit ñi vraiment. am na yëre yoo xamante ne waruñu ko sol. du leen jàpp te du leen ma sa jàpp. waaw parce que jël benn yére ba nga xamante ne nii daf lay leer ne même boo ci amee double XL dafay centré ci sa yaram comprendre nga. Mm-hmm. yàlla bu fekkee ne da nga am ay përëk wala genre quelque chose comme ça. Mm-hmm. Euh, pàccal je ne sais pas xaw ma ni koy waxee noonu. Mm-hmm. Euh, xam nga ba mu vulgaire de trop dutul am classe dutul rafet te ku la si gis du la si nawloo te it mënoo see attiré kenn. Vraiment. Non, mais c'est très important. Euh, il faut nous conscientiser Nini. parce que surtout sama mbokk jigéen tu sais pourquoi man yenn saa yi daf may metti nga gis koo xam ne euh, li mu sol na nga naan kii soit nga ne kan ma ko jaay wala ndax kii bi muy génn ay du du du que ne li mu cher non non je pense ne du mais surtout nga sol lo c'est adapté à ta morphologie du gis ngeen euh, sol ni. mu jar 1000 francs 2000 cinq mille c'est pas le plus important pour moi, li ëpp solo moy nga sol li nga xamné té c'est adapté à morphologie Té émission actuation fi fii ci WF1 TV lolu nañ bëgg woné lolu loolu nañu bëgg mettre en avant c'est-à-dire que yeen ñi nga xamné yeen nek ci showbiz bi ngeen dimbali ñu ñun ñi ñu mëna sol li nga xamné ne lañu wara sol parce que c'est très important sol li nga wara sol ak solo pour solo ça c'est dé doguma la dé mais man mom damay imposer client soo ne sax man lii laa bëgg dinaa fexe ba imposer la xam ne lii dina la jot dina am classe man ma imposer la ko jaay la ko mhm. te soo ko solee incha allah di nga ma indil yeneen client man moom damay imposer ko ah parce que jaay bi foofu la nekk. voilà damay imposer parce que mooy mooy loolu. damay bëgg xam nga nga sol dara mhm. sa copine gis ko nga indi ko fii. loo xam ne day da jot am classe. voilà mais yéen boo leen fi nekk ndoowe. bien ma c'est vrai c'est vrai comme question bien bien sûr euh, d'habitude ça dépend avec si ni soit parce que en général bu dugg sé rek day am benn aperçu boy am souvent dana man jugal wax ak mom wala man ko jugal wax ak client bi wala souvent bu dugg sé rek man jugal wax am parce que mom dafa bëgg lek à ah, tout le temps ñuy lek <laughs> te man duma lek bo xolé ni ma tollu xam ne du ma lekk léegi man boy gor la boy fils man boy gor la bas bo lek bi yow la rek lool mo amuñ ci problème quoi voilà mais légui bëgg na à chacun ku ci nekk surtout ya ngeen euh jox ma ben anecdote ngeen netali ba nañu commencer par bir bu grave je sais pas lo xamné ne dund nga ko ci seen bir boutique. wa loolu mom je pense que euh ñi jaay yéré ñëpp souvent dina leen dina leen dina leen arriver yow ban nga ñu mën a man mom bi ma si gëna a euh c'était en 2021 mille vingt et un. Uh-huh. Euh, bi sama place taqué -hmm. waay parce que 2021 xeyna di liggéey si. ñëw ci place bi jël sama téré comme ni may def chaque jour jang mat la bul euh, jël sama kalis, pour war ko bank euh gaddu sama sak, ba génn place bi pour dem bank automatiquement ma dama faté sama masque daanaka dawuma lu bari en fait lolu yagul 2021 yagul dara si laa dëpp ñëw avant may ñëw sax ci ci buntu place bi fekk naa fi ay nit affaire bi commencé saxaar bon bi ma ñëwee comme mayor yor caabi ji ma ubbi vitrine bi rek affaire bi explosé vitrine bi explosé euh, bon place bi tàkk ba jeex ci loo xamante ne nii maanaam moins de dix minutes la nga perte alal ju toll noonu te boobu maa ngi wàcce arrivage boo xam ne li ma si defoon 6 millions bëri na mais lépp dama ko perte te vraiment du état moment ma dédommagé du dara dem naa ba vingt cinq mille francs yoo xamante ne wala 1000 francs yoo xamante ne pour ma am ko d'ici 2021 xam nga yàggul pour ma amoon ko sax problème la te ngi doon tombé ak période tabaski lu bëri war ma sama kër nekkoon na moment bu difficile ba nga xamante ne ni dund naa ko vraiment dama doon toog du ma lekk du ma naan parce que liggéey laa xam nga xëy war a toog sa kër liggéeyoo en fait dafa xaw a metti ma war a reprendre à zéro sama yaay maa ngi koy sant di ko gërëm moo ma njëkk jàppale vingt vingt cinq mille aussi après nag tu l'as tu l'as reculé sax ma a si dame tu l'as voyage pour affaire yi métier bi euh, ban c'est très important xam mm-hmm. euh, leçon de morale la. Mm-hmm. avant ñuy c'est-à-dire na mais si je comprends bien taxul nga découragé. taxul ma découragé parce que euh, yalla jeexul te euh, doomu adama à chaque fois bu faites ni surtout ndaw nga loxo lu ca jógee rek beaucoup cher. te yoonu ndaw yomb c'est impossible tey jii alal jooju dem moma ma gënal ken kenn ci sama membre de famille dem wala man ma dem wala ma am ay gaañu gaañu wala quelque chose comme ça parce que ci semaine boobu noonu dund na ay tolof tolof dem na fi accident moto lu nekk def naa ko si loo xamante ne mënoon na yóbbu sama bakkan mais effectivement yàlla suturaal ma kon bu sama alal demee ak nu mu mën a toll du ma découragé wu parce que jeune la xale la te liggéey moom war te à chaque fois damay joxe bon exemple si ñi nga xamante ni bëgg nañ ma te it dama fas yéene famille am avenir boo xamante ni tey mhm bu samay doom ñëwee di naan xamné seen papa kat liggéey na li def na li def na lii moo tax du ma mës a jamais plus grand jamais. jeune la xale la euh, jàll na ci ay tolof tolof yu metti parce que nga am say million nga defaral ko sa bopp du kenn ko la si jàppale nga xëy un bon jour yëpp làkk euh, te bàyyiwoo nga gën a takk sa ceinture gën a tege ci yoonu. Euh, business bi nga ne du ma bàyyi loolu ko am jom rek koy def kon xale yi nga xam ne tey jii nañ nekk dans la même situation wala ñu bëgg a arrivé ci dara bu leen découragé Sénégal moo demee noonu dara yombul te dara xëyul sotti nit xëy na di def business am nekk ci pendant des années liggéey ci ay millions yu bëri bés ñëw rek lépp ne furaas doo xam ndogalu yàlla mu nii demee euh, Seydina yow lan nga ñu mën a raconter loo xam ne peut-être dal na la mën na bañ a doon Euh, ci ci ci ci ci mais peut-être ak nit wala leneen loo mais toujours ci wàllum liggéey bi loo xam ne dal na loo xam ne doo ko mës a fàtte. non lu moom si liggéey bi dafa bëri lool mais nag dafa am lenn loo xam ne dafa ma marqué. Mhm. dama amoon samay clients yoo xam ne doon doon jënd si man valeur bu bëri xam nga pendant des ñoom ñu jékki-jékki nag seen koom-koom wàññeeku. voilà femme bi daal di ñëwaat xam nga ne moom dafa bëgg ay bagage xam nga daal di tànn tànn xam nga rek jigéen ñi dañoo bëri sutura xam ba mu tànnee tànn après mu daal di woo jëkkër ji xam nga xaw ma lan la ko jëkkër ji wax mais man dama sit ne moom mooy loolu instant yi moom mooy loolu mais bagage yi noonu laa ko ko joxee gis nga jaay bi ñun ñi ne ñu ñu defee jaay famille la quoi mais man jour boobu noonu damaa jooy parce que xam nga rek aduna aduna da nga jàng da nga jàng àddina foofu parce que tey jii ko am koom-koom daan ñëw ci jël ay yenn valeurs yi si yow mais teewul toog tamit kooku gore bàyyiwu la dellu si waat ci am na kon lu mu yaakaaroon ci yow ba tax nga mais yow aussi nga nga réceptif ci loolu te c'est très important parce que tey jii euh, milieu milieu milieu bii ngeen nekk mhm. nii euh, di ngeen gis bu ne di ngeen gis ku leen bëgg ku bañ mais surtout ku leen non parce que tey jii je vous donne ben anecdote par exemple di ngeen gis ben genre boo xam demain wala lundi warna na liggéeyi. la te ci liggéeyi bobu noonu dafa wara am lu mu war solo. Mhm. mais amagul lu mu ko mën a defee. dëgg la waaye euh, loolu nga wax effectivement lo am la parce que tey jii àdduna moom dara jékkiwul sotti. Ah. dafay neex tay suba mun xari. effectivement. Euh, am na ci sama client yoo xam ne comme moom li mu expliqué sànq ñoo xamante ne bi may débuté dañ ma doon jàppale wallahi da nga leen doon monnaie sax ñu ne la garde la monnaie tey dañuy jékki-jékki di la woo dama feebar Assane dama nàngam dama nàngam mu leer na ne ne la woon woon na mais ñooñu à chaque fois dinaa leen jàppale mais du ma yem si jàppale leen kese dinaa leen encouragé ba ñëwaat xam ne yàlla jeexul

damay def samay participation yi nga xamante ne ni ci samay bagage laa koy def mhm, nit day ñëw yore benn quinze mille francs bëgg robb bu quarante cinq mille mhm. ma laaj ko fan nga jëm mu ne suñu soi-disant famille ñoo war a taje affaire yooyu noonu mu leer ma ne kii tey bu ma ko solee bu demee dina siggi xam nga dina kontaan sigil boppam effectivement effectivement euh, mën naa ko ko bañ a yombalal mën naa ne ko bon mën nga jël après ngay indi ndànk-ndànk mhm. mais ko la xam nga am na ñoo xam ne boo leen mayee moom rey nga leen loolu pour motiver ko la mais bu passé dama koy woo téléphone na ko robb boobu noonu jël ko mën ngay ñëw di jënd si comme ni mu doon demee comprendre nga parce que yàlla moo teral doomu aadama dëgg la kon pourquoi pas doomu aadama mënul teral doomu aadama mais wax nga léegi benn terme bu ma neex fête période fête fii si Touba Tawfekh période fête comment ça se passe parce que ah, kii kii <laughs> xam naa ne période rakkaaju période de fête la si xaw ma kan moo koy piqûre période de fête non fête moom vraiment xam nga du ma mën a contrôler bagage di ko la moom waaw waaw loolu tamit il faut que wax si kii noo koy contrôler dafa doy waar kii déjà bu jëlee kàddu ci clients yi man damay tiit parce que moom moom lu ko lu mu sentir lu mu sentir lay wax moom noonu la ko yàlla bindee. waaw est xam nga bëgg naa lool ci nit. waaw moom moom mën nga ñëw léegi dugg si. def sa sañse bu baax jaaxam foo ko jëndee effectivement ñun xam nañ ne sañsewul <laughs> bon mais moom day ñëw wax ko si digg bi sax na si li nga sol rafetul dafa gàtt wala nangam li nga sol chinois bi original baa ngi nii naa nan nga koy defee. waaw ah, mais noonu la aduna noonu la da nga leen wax dëgg mënuma ko franchement. <laughs> waaw yow mais da leen di wax dëgg. su ma comprendre yéen ñaar yow da ngay modéré moom il est dans l'excès. voilà très yow yaa nekk dans l'excès c'est-à-dire que yow moom it ki day ñëw solu jëndalu cheram ñëw dugg sa boutique nga wàccee ko mais noonu la da koy xamal parce que ñoom xamuñu des fois dañuy yor xaalis jënd lu bon si àll ba koy xamal da nga leen di nandal loolu bëri na fi boo yu bëri fii nii dañ leen a nandal ba ñu nand mais tamit waaye doon nga koy defee tamit mais bien sûr waa léegi buy dem moom da nga koy bàyyi mu ñibbi waa leef tuni wam wala da koy changé loo par force bés bu jëndee ñu changé ko mais. bés bu jëndul mais boobu du génn. non dañ koy balaa ñuy ne fii la ko jëndee. non moom mooy loolu suñu tëkkee sax du ko ko tapal dama naan ko wéeru ne la. léegi du métti na ci boutique mais ma booleel moom mais tamit xoolal xoolal lii rek nga sensé macha allah. waaw loolu tamit je a à préciser. chers amis téléspectateurs j'ai été habillée par Touba. tawfeex sama ñaari góor yi ñoo ma solal une très belle tenue machallah gis ngeen tamit sank bi ñu décrypter une très belle tenue donc ñoom fii lii lañ fi nekkee dina defal affaire yu nice nga gis ci hein? sa bopp ah, ah sànq nee 5XL 5XL. am nañ ba 10 moom 5 la wax mais man 10 laay wax. donc chers amis téléspectateurs maa ngi leen rappeler toujours que yéen a une seen émission Actu Fashion fii WF1 TV la chaîne des femmes nous sommes en compagnie de nos deux très chers frères euh, borom Touba Tawfekh comme nous l'avons ko depuis tout à l'heure euh, c'est une boutique qui a ne taille plein nañ ah. faut pas croire qu'ils font que de grandes tailles Amener taille tailles, mais ils sont spécialisés pour les grandes tailles Ni nga ne fan solo elles font du XL double XL triple XL jëm kaw mën ngeen ñëw di trouver la mode en tant que telle mais li ma je neex moy ils vont vous apprendre à vous habiller sama xarit euh Solo mais il faut aussi demander aux spécialistes comment on s'habille et ne pas mettre n'importe quoi n'importe quand n'importe où et surtout n'importe comment Il dafa am nuñ koy agencé am nuñ koy solee am a sol am sol donc c'est très important s'il vous plaît demandez aux spécialistes Boulen leen ci boutique boulen leen borom boutique parce que kii voyagé dem uti marchandise marchandises. dit exposé ko def ay il n'est pas là pour rien pas fi seulement pour gagner vous ko à temps non ce sont de bons repères il ils peuvent vous aider à trouver un style et à adapter votre propre style on a ce problème là le problème d'être stylé ñepp bëgg être stylé au Sénégal tout le monde veut l'être mais problème bi qu'on on n'arrive pas à le faire dañ koy def de façon désordonnée te xam ngeen lan moko indi ñom ñoo ñu wara orienter et pourtant on leur demande pas alors que nañ leen wara laaj mais tey jii euh, mm-hmm. client bi nga xam dafa dëgër bop bon dëgër bop mom ko def man mi lañ koy jox client yu dëgër bop yi. ah fii si boutique bi waaw fii si bëggee nii maa koy waaw moom moom vraiment. voilà bo xawé dëgër bop mom ma bayiko ak yow te et puis bon nit tamit bu xëccee ni li la bëgg bon da ngay xam ne da ngay bayé ak choix am parce que tamit ku ci nek am nga choix.

effectivement parce que am nañ fi ay robe yo nga pour dina deug la la robe yo xamante ni vraiment du jar ñawlu du jar da ngay prêt comme niñ ko wax rek prêt à porter prêt à porter yi nek Sénégal en général plus de 25 ans 27 ans fofu la yamalé sen jaay ya ngi dégg man nak dama commencé 10 ans ba 60 ans bo ñëwee ma jaay la 60 ans gis nga sang ya ngi gis ay mère ñëw jënd. ay robe yi nga xamanté ay cher la ça m'a ça m'a vraiment marqué. parce que tay jii nga dugg boutique bo xamné c'est-à-dire que conflit de génération bobu mo ma ci neex. Mm, c'est-à-dire que nga dugg ci boutique bo xamné ne da ngay gis ki am 15 ans dugg ki am 20 ans dugg 25 ans dugg ki am 30 ans 40 ans ñun ñëpp ñu retrouver au ci benn boutique et pourtant ñu ñëpp benn bëgg-bëgg lañ bëgg sañ ñëpp sañ sa lañ bëgg. moom laa parce que affaire dafa war dafa war a yaatu. ñooñu ba ñu ne Touba ba pare dippee ko tawféex la ñu xalaat ne waruñu ko yemale si disquette yi kase. effectivement yi dafa war a yaatu. comme tur bi li mu wuyoo moo tax plus de soixante ans sax boo ñëwee ñu génne la robe trois pièces boo xamante ni ijaab da nga koy jullee bu la neexee sax demee ko màkk am nañ fi ay ah. bagage yoo xamante ne ku nekk mën na ko. ñun ñii aussi am ay bagage yu góor yoo xam ne am nañ ay bagage yu góor mais yooyu noonu indeeguñ ko Sénégal xam naa ne dinañ ko indi Sénégal incha allah mais am na Turquie bés boo defee commande rek incha allah dinañ la ko dafa am yu jigéen am yu góor. waaye Touba Tawfekh Touba Tawfekh comme ni mu wuyoo rek am nañ euh, ñaari boutique yoo xamante ne pour góor la bii dàll lay jaay dàllu góor bii yére góor lay jaay. loolu nag inshallah rabbi euh, déjà am nañ endroit buñ ko wara def. inshallah alors sama gars dañu am ben rubrique bo xamné rubrique témoignage lañ ko tuddee. Mhm. donc euh, amna na jigen bo xamné mo ne ci yéen témoigné ci seen boutique. Mhm. témoigné ci seen environnement. alors chers amis téléspectateurs de WF1 TV la chaîne des femmes ñu dem seetaani témoignage bi ñu ñëwaat ci plateau bi léegi léegi.

ñoo ma ko jaay bi ma leen xamee ak léegi yàggul mais lu ma sol su ma génnee ñu laaj ma fan nga ko jëlee ñu ngi jaay ay dàll yére ensemble lépp ay nuisette saag lépp daal seen kii moom rafet na trop ñoom daal ñoo fi nekk ils sont au top ku bëgg sañsa yu baax sama mbokk jigéen ñi woon naa leen fii yéen ñëpp ngeen ñëw jënd si bagage yu rafet la ñuy jaay franchement alors sama gars comme niñ ko seetaanee léegi si suñu rubrique de témoignage euh, donc ñu ñëwaat si plateau bi fii si Actu Fashion dans wf TV la chaîne des femmes donc tey jii euh, bëgg naa euh, muy yéen ñaar ñëpp ngeen wax ma lan mooy seen relation ak seen seen cliente suñu relation comme famille lañ quoi voilà ñun ñun ñu moom suñu. client yu ñu am yépp muy nga nekk mag nga nekk xale nga nekk jéeg ak yépp ay famille lañ waaw bés boo xewlee sax ñun dañuy dem voilà bés boo amee problème dañu ciy takk rëpp waaw client moom mën naa ne xam nga bu yàggee ak yow dafay dépasser cadre client day dem ba mbokk lay doon waaw

Qui qui qui gère boutique bi nous ñëw nekk fa présence effectivement c'est très important effectivement Touba Tawfekh faire la le la gagné boutique yu bari parce que ñun moom euh, fi nga tàmmal liggéeyee clients yi nga am à chaque fois minal leen seen bop à chaque fois bala ñoo ñëw dina la fi fekk parce que ñoon dañoo am heure bu ñuy ligé comme supposition suñu heure à partir de dix heures la suñu heure wàcc à partir de une heure du matin là, comprendre bu je comme niñ l'émission tire à sa fin ah comme on dit. donc euh, moi déjà j'ai été ravie n'est-ce pas parce que comme ni j'ai été habillée par la boutique je voulais remercier bu c'est une tenue très classe très douce aussi. Euh, si yaram yëguma ko benn yoon mais bëgg aussi tayji jii avant man may may wax samay cadeau ci boutique bi bëgg naa ñan ngeen am vraiment pour remercier leen parce que xamna né Touba Tawfekh mhm. tey jii bu taxawé ba tayji buñu waxé ñu mode vous êtes au devant de la scène buñu waxé waxee euh ñu bëri nañ leen xalaat euh, ñan ñoo nek ci ginaaw Touba Tawfekh percusseurs yi. ñan waaye comme li nga wax question bobu pour ton ici, parce que Touba famille la famille la ngi euh, famille bi di commencé ko euh, président bi euh, mam boss bi xam nga Babacar sama comprendre nga Ngom Fallou Fallou pap Ngom comprendre maa ngi euh, ziare waale ku mel ni Gabi nga xam ne camerounaise la si biir Touba Tawféex la nekk di liggéey euh, Seydina Alioune maa ngi sama frère Malick sama boutique bi nekk parcelle moom moo ko géré comprendre nga euh, maanaam ñoom ñëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm parce que équipe la nag ak Alassane ñoom ñëpp Mamadou ñoom ñëpp maa ngi leen di maa ngi leen di ziare waale comprendre nga leen wax ne comme. ni ñuy yàgg a ànd di liggéey yàlla nañu saytaane cheikh loo noonu lépp lu ñu bëgg rek daanaka ñun ñoo ko bëggandoo muy loo xamante ne dafay jëm si kanam kon yàlla na yàlla sottal lépp. yow moom remercier na ba pare du ma ci jaaraat quoi. mais man samay client Touba Tawfekh. c'est très important. ñoom si boppam ñoom lay remercier voilà parce que ñoom ñi fii nii ñoom ñooñu ñoo ñu fi teg quoi heure yi ñu ñëwee ñoom ñoo ñuy jox suñu xaalis bés bu marché neexee ñoom la bés bu nakaree ñoom la maa leen di remercier bu baax a baax a baax a baax voilà di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla xewul bi nag gën a yokk voilà ba ñu yëkk quoi maa leen di ñaanal bu baax a baax a baax kontaan naa si yéen yéen jéeg yi samay xarit samay soppi. waaw client yi vraiment. samay xarit samay soppi lëcc lëcc yi nag waxuma leen. <laughs> yéen lëcc lëcc yi man maa leen di sant sama bopp. voilà waxuma leen kontaan naa si yéen. Ah. jéegi man moom kon man maa ngi soog a comprendre ñoom laa far kon lëcc lëcc yi mooy taay fi mais lëcc lëcc yi waxuma leen. ku ci lëcc lëcc ku ne. <laughs> waxuma la man maa leen di sant di leen gërëm. 128 ziga yi ñoom laay wax. commencé ko ci zéro ziga yi. ba parce que ñun suñu giga moom li ci li ci daa li maa ngi leen di conseillé ngeen lekk fondé xam nga di daloo <laughs> voilà waa dëkk bi daal tës man seen coach la li ci li ci man maa ngi seen coach sama jeeg yi moom dinaa leen remercier bu baax sant naa leen gërëm naa leen yaatal ngeen ngeen ma si liberté 6 ni nii uno derrière uno en face

Fashion donc comme ni ngeen ko depuis ce matin ñu nekk ak suñu ñaari frères yi fii ci taw Touba Tawfekh ñu le mode dans sa largeur am na nous ñu de mode c'est assez large dëgg la j'ai eu à vous le dire yow mi nga tu es styliste tu en fais partie mais ñi nga xam ne tamit dañu am boutique prête à porter ñi nga xam am boutique prête à porter ci ngeen uude bi bul foog ne bokkoo ci yéen ñëpp laay bett si seen biir boutique ñoo seet si leen parce que la mode elle est vaste maa ngi remercier waa Touba Tawfekh li ma sol nii ñoom la ñoom ñoo ma habillé mais aussi vous verrez aussi la deuxième tenue qui a été euh, offerte on peut dire mais surtout le décryptage qui a été fait parlons de la mode Je remercie remercier aussi ki nga xam ne Evelyne moo maquillage bi mais surtout je ngi remercier sama lakalu Adina. Bunaama sama caméraman bi sonal Nama, ma lakkal na ma yem mais les ci liggéey bi la bokk perfection bëgg tey jii bu ñu leen émission ngeen gis ci seen bopp cadrage bi baax son bi baax lépp normal du man am na ku nekk ci ginnaaw koo xam il se dévoue dans ce qu'il fait et il sait ce qu'il fait loolu moo ëpp important donc bu naa ma caméraman maa ngi remercier vraiment c'est pas tout le temps facile ay erreur day am yeneen ak yeneen am mais il supporte et il prend toujours sur lui kon tey jii boo leen xoolee émission bi neex émission bi jaar yoon c'est pas seulement non, Salimata. Non, non, il y a d'autres personnes qui sont derrière. Donc, ces personnes-là, Manglen de remercier. Manglen de remercier Donc, Manglen de Djor, Dig Daye, qui belle émission. Fenen Leydon, fan, on ne sait pas encore, mais vous verrez, c'est quelque chose qui sera vraiment top. Mais surtout, je vous dis que la prochaine tenue aussi sera de Touba Taufer je le précise. Vous aurez tout ce qui est écrit tel Tissouf, vous aurez leur contact. mais aussi vous pouvez aller les voir sur TikTok, ils sont sur Instagram, ils sont sur tous les réseaux. Allez voir ce qu'ils font, c'est très important. Et vous dites, je vous dis au revoir et à bientôt, Inch'Allah.